Vai, Mandiado! dinaa ko dugal am na xaj de boole ah. lu dugg si biir gerte moom mu direction commandant Diouf moo ñu Thank you. non maa ngi foofu taxaw waaye mu gaaw Emma, Emma, Emma, Emma. Hello. Arkan, non gisuma ko fii de. Thank you. lafiya na yau Jun. Jun. jërëjëf internet wu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo yéen tey nag Leewtoo TV ñëw fii ci stade arène nationale bi pour digteel leen li gën a li fës ci euh, buntu stade bi ñu bëgg leen fi defal ay reportage jël réaction euh, amateurs yi fans yi xool lan lan wax ci combat bi ñëw leen ñu jël quelques réactions yoo xam ne nii ci fil bi la ñu nekk jaajëf grand ñu ngi leen di ñu ngi leen di nuyu ñu leen di nuyu

incha allah incha na tee rek jël temps waaw bu na tee rek def nànk rek kase amul leneen waaw yàgg na <laughs> allo Ibrahima Ibrahima Sonko ah man Lac 2 lay waxala ah. Lac rek waaw non dina oh, non non dina neex fii la ñëw nañ Pikine daan Boy Niang teel yu ñëwaat incha allah xoolal daan amul seen këram bu soobee yàlla Lac lu mu lay waxal Lac bul kenn sàll sa bëre jëlal sa temps combat bi jaajëwaay yëpp ñu ginnaaw Lac 2 yoo laay waxal yàlla yàlla may ndam Lac 2 Lac fii sa kër la fii yaa moom arène bi sa arène la daan ñibbi jaajaa ñoo lay xar incha allah. man Pierre Senghor laa tudd uh, Omar Sène kii uh, kii waaw uh, kii nu ma tuddati Omar Sène mais Eumeu Sène boo gisee Bombardier daan ko xam Modou Lo daan ko man sama sago moo tax te man li ma li ma ñëw xam si Pikine te man maay RND pour Macky Sall présidence ah, am na confiance man la rek. jaafara grand man la Assane Seye doom la si Alioune Seye waaw ñi di wax Lac de Guiers xamuñu Lac de man maa xam Lac de Guiers comprendre nga Lac de Guiers mëneen mi mëneen te wane ko ko si làmb parce que ku naan mën lu bëri danga ngaa xamul da nga ñëwul saal xamoo ko non demul noonu combat bu nekk ak lu mu laaj rek mais tey lépp leer. may ñu tudd rek à suivre. waaw jaajëf waay waay man la sëriñ Modou Gaye waaw amul seen laaj supporté si waaw waaw laay xoolal Lac de Guiers leen rek laa koy ñaan ngir yàlla rek bu mu taxaw na digg xoolal ñu defal ko affaire dem ñibbi mooy lool waaw waaw jaajëf man gisee laa tudd non non favori moom daanaka amu ci ndax la dëgër moo gën a taxaw taxawaay mais Eumeu Sène na ko moo tax mun a jox kenn favori jaajëf ça va Sarr Sarr waaw Thierno Sarr rek te yaaw jaar moo fi indi baax sax moom moo ko mën waa Guédiawaye yi rasu rek kilifa gi maa di leen sant bu baax waaw di Ousmane Thiam waaw man nag sama mbër bëre man moo doy sama mbër mais dama ñëw rek xam en tant que amateur waaw ñëw cons ko xam nga mais di ñaanal ama seen ndam nag waaw man moom xam nga sama combat ñëwagul nag waaw combat bi lenn la ëmb ñëw jàpp daan loolu kase la amul leneen ama seen lef naa ama seen rek ko leb maa ko waa ji leb ko rek waaw noonu lay demee cent rek amu la ñëpp la dëgër la dëgër waaw waaw dañ koy ñaanal ndam lu na jàpp waa ji bëri loo laamu ji laamu ji war jël temps la bu jëlee temps la koy daan waaw la jël temps waaw yàkkamtu wu. waaw laamu ji de gàncax ba Eumeu Sène a si yaa ma gën a xam troisième fois rek ko xam nga dañoo niil bu njëkk bi deuxième fois ñooñu daan ko troisième fois ñun moom waa géej waay ñooy seen la demee nag ñun nag ay waa Pikine lañ quoi am moo ñu indi fii nii mooy loolu mais Lat nag dafa jàpp ne combat bi day yomb quoi mais du mos a lu met lañ koy teg tey leer na mais non combat bi combat lii la nu mu tuddati euh, salsalaatoo la a jël rek yaa mooy loolu. non man maa ngi si combat jàng bi quoi Modou Anta Diène Kairé waaw combat bu mooy combat combat bu garaaw la ba ak sëñ Touba non Modou Anta laay supporté te di nga Dakar laa jógee mais sama mbër la te di nga gis lu yéeme non maa kanam non man maa ngi si waaw du yomb Lac da duma eh, daan eh, amul ragal non ama ama tapet la ñun ay ay booy géej waaye leen non ama tapet la amoon fit dañ koy duma daan bu Nii la rek nag Bilal waa Gambia people la kañu àndal nag mooy Eumeu Sène yéen koy dégg noonu yàlla ama jël ndam li dana ko dégg de waa Gambey ñaan waa Gambia people nee nañ borom tay singa lañ àndal borom daf du wér nan leen yaa ñu ko tàmmal bëreel daal ñu ñibbi say Gambia ak Sénégal nee daan rek macha allah na yaram bi na seen bus di dox jëm stade fas yéene supporter seen mbër ba mu jeex noonu nag ay bëgg a metti ñii mbëri amuñu seen fay ñi def nii nit mënuñu leen fay sa yitte bàyyi sa kër bàyyi say njaboot Assane ni ma ko waxee nga bàyyi sa kër bàyyi sa njaboot benn mbër ah ko rek dafa neex dafa neex jógee ba gëm ñoo supporter Eumeu Sène ñaari fan fi am ñu léegi am nañ fi ñetti fan ndeysaan waa gis nga ko Eumeu Sène ko waral rek buñ tey la dëgër ñoo ko mën. nee ay Bilal. ak Gambia people. waaw ñu ngi nii de ndam rek ndam rek. incha allah. Urungaas de. Mbadiane ndam la. nice name. We are very happy today. Special today is the D-Day for Obosen. So may Obosen take first, you know. I'm very happy with this number. Bilay bilay. Soo ko déggee da nga traduire. Xam naa ne Ousmane xamul li kii di wax dafa déggul anglais. Waaye nag taxawal na tey jii. Obosen dina ko jàpp duma ko. Daan ko. Sey Bilal.

de. teel a 4 avril teel a ñuy daan Lac de Guiers si kàttanu yàlla. teel a a ñuy daan Lac de Guiers si kàttanu yàlla ak ba mu jeex. lu si mën rek daan daanaat lay doon. nga bëgg sa mbar bëree ko. tey bëre rek jàpp daan. sanjaali yee balaa balaa la waaw waaw ma nga noonu c'est l'entrée des Gambiens Gambiens yee dugg si di yëngal nga ne. nga ne. dégguma suma gars de te dama la war a dégg tey tey si nga xewle waa Gambie bu ñu dugg see feeñ jël ndam li yóbbu ko Gambie. maski yi la sa gars yi joraale. ayca. dégg nga loolu. bu ñu dugg see stade bi war na koo mën a yegg dinañoo bëgg a jël ndam li. daal di ko yóbbu Gambia people tey Eumeu Sène borom tàcc nga borom daf du wér soppay jóge fu ne di veillé dem ba léegi ndax Eumeu Sène moom 4 avril ba ay Bilal tey ngay gis lu nekk laa dile maro jàmm dile maro banta jàmm dile ay jàmm dile naro national arène bi ñoo ko moom làmb 100 pour 100 pur dur moo fi am kan moo ubbi bal bi nag grand combat Eumeu Sène borom Taïsinga borom daf du wér ak la daguer le portion de Waalo ma nga noonu Gambia yes nañ kii ci arène bi cey ana sama cameraman ndànk rek da xalal leen yoon bi ay charmam supporter yi jóg mbëri baax mu neex ama seen la ama seen affaire bi ama la ama ama seen yow da ngay jaay ticket wala ngay supporter man damay supporter si ama seen barki yonent bi ama seen affaire bi ama la yow kon amul loolu amul loolu Bilal jaakaar masque bi nee na Pikine la waaw dañ koy ëmb seen loo bëgg mu def la nag mu andi ñu ndam bu leen ruubee bu leen ruubee mbër Eumeu Sène lañu gëm ñu Eumeu Sène day daan day am ndam si kaw Lac de Guiers dégg dégg ma waroon Bilal Eumeu Sène day daan Lac de Guiers si Eumeu Sène day daan Eumeu Sène Eumeu Sène la coor dundee ma nga noonu bañ Eumeu Sène yàlla nga dee ñibbi daan ñibbi de daan ñibbi de barke Seydina Mohamed. may gaay na leen may gaay ñu dem booy na leen may gaay ñu dem booy. ma nga noonu nag Bilal. Gambie yaa ngi ci buntu stade bi. di waajal dugg. bàyyi la dugg. ma nga noonu nag ba waa Gambia defee seen li nga xam te ne nii mooy wane seen bopp daa dugg ci stade bi dañuy jàdd gis waa Béré Vert nuyu naa la miss. maa lay fay. Sara. nga ñëw. jaruñu laaj sax waa Diène Kaïré la beere beere yi fan ah fan ngeen nekk. ngi si jàmm nii pare nañ instant yi di ñaan yàlla rek mu defal ñu ndam instant yi pare nañ jël pare na yàlla rek moo si des di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal ndam incha allah. ko may dara na ko daat. la borom ndox ba. jaay dafa leer. mën a assuré nag Bilal c'est l'ambiance bundu stade bundu arène nationale mu fees dell di nga heure bi jot gars yi teel nañoo ñëw ba teel am bu baax teel seen mbër mu baax baax bu neex bëre bëre bu neex. waaye nag li ci gën a importance daal di jël ndam dem ñibbi kon dañu dem Bilal dangay tuddee rek ñu dem ci rang bi sama gars yi la ñuy waajale bés bi ak ku ci nekk kan nga àndal ndax nee naa leen 100 pour cent play lay nekk ku nekk da ngay indi rek ñaan yàlla mu daan nga daal di ñibbi nuyu naa la. maa lay sant. kan ngay support. man Eumeu Sène. Eumeu Sène waaw. loo bëgg mu indi ko tey. ndam te day daan. loo mu bëree ko xeex wala bëre. xeex ba pare da koy ñaf ba pare daan ko. da koy <laughs> waaw madam ci loole Eumeu Sène ah, ñun daal dañ ko déglu rek ñoo ko daanoon bu yoroo ñu daan ko daan bu reewantee ñu dóor ko mu daanu waaw Bilal man damaa seetlu soo ba ñu ne sa la dageeram ana ay supporter am ana la dageer ah nuyu naa la sant yàlla bu wér la dageer la dageer waaw loolu noonu mais li ñuy ñaan mooy yàlla may ko ndam lu seddu guyo ñun loolu noonu lañ bëgg quoi su loolu la ñuy ñaan. ko indee dina daan Eumeu Sène. Lac lu mu liggéey léegi lay andi. ndax ñun yaakaar na ni suñu mbër moom. pare na bépp côté quoi connaissant ni li ci des mooy lenn mu ñëw andi lim liggéey jàpp ko daan ko ñu ñibbi ñun loolu kese moo ñu tax a. supporter Lac de Guiers. ñun am rek am rek. billaahi ba géej fer billaahi wallaahi ñun waa Pikine waa lañ 100 pour rek ca rek billaahi c'est la piginité kee la da guerre la borom Pikine ñi dend ñoom ñaar sans bruit fair play nuyu naa la. ah ziar naa la soxna si. yow foo dëkk. man Guédiawaye laa dëkk. kon c'est la da guerre la. non man faral ma si kenn. que le meilleur gagne. kon loolu ci stade man lamb rek moo ma indi bëgg lamb. kii amateur la. kii du supporter. lamb ko indi. yow lu sa problème. yow koo faral. Bilal kii sama xarit la yow koo faral. nga bëgg mu bëree ko. dafa leer bi laar kii expliqué na momo kii sama copain la salaamaaleykum. maaleykum salaam. Eumeu Sène. waaw laa si bëri. bëri daan rek def ndànk rek waaw. waaw Eumeu Sène tamit. Eumeu Sène waaw waay bi. gaa yaa ngi ñibbi kon Bilal dañuy ba beneen yoon rek incha allah ma ngi